ba mi haatim yaay seen geer yànneen mandu abdalaay lislaam baak ange billahi mina rahiim suma salaatu wasalaam ala asrafil mursaliin seydina mawlana wa nabiyana muhammadu rasulillahi ibn abdullah ñu ngi santaat yàlla di julli ci sang-sang yi waaye di nuyu képp moo xam ne rek yaa ngi toog di xaar sa émission sera sa xol ci nabi maa ngi lay nuyu di la ziar rawatina soppay Seydina Mouhamed yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar waaye duma fàtte ki nga xam ne moo di sëñ Sidi Bousso nee naa jot naa ci nuyoo bi yàlla na sa jàmm yàgg waaye duma fàtte sunu papa sunu sëriñ sunu lépp muy sëñ Ablaye Bousso dañ koy ñaanal saa su ne ndax boo gisee ndeysaan ñu ciy wax di ko bamtu di bamtuwaat da di yëg dafa am solo te sëñ Ablaye dafa yar njabootam ci yëg doomu aadama ba tax na ki nga xam ne moo di sëñ Sidi Bousso ñu ko ciy nuyu saa su ne ndax dafa am yëg saay buñ demee Touba foofu ca Gédé dañuy dalal di saafonteeg ñun di xool lekk nañ wala naan nañ sëñ Sidi yàlla sa jàmm yàgg waaye su ma jógee ci loolu rek damay nuyu ki nga xam ne mooy taaw ci biir kër sëñ xa sëñ sëñ euh, bu soo muy sëñ Xaadim Bousso sëñ Xaadim maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu njabootu sëñ Ablaye gépp rawatina jigéen ñi ki nga xam ne mooy taaw foofu di soxna Ndeye Anta Bousso maa ngi koy nuyu di ko ziar nee naa su ma nuyoo sëñ Xaadim Bousso mel ni nuyu naa njaboot gu góor gépp waaye su ma nuyoo soxna day Anta Bousso mel ni nuyu naa njaboot jigéen ji yëpp di la ziar di ziar ñëpp waaye duma fàtte taalibe yi macha allah dañuy seetaan di commentaire ku ci mel ni Euh, Massamba Diop maa ngi koy nuyu di ko ziar doon taalibe ci sëñ Ablaye bu sa doon nit ku am yar ku am diine ku am taalibe li ko waral mooy sëñ Ablaye moo leen ko yare ba tax na ñu ngi koy ñaanal yàlla guddal fanam yàgg ko yàggal ko fi lool waaye duma fàtt taalibeem ya ca waalo maa leen di nuyu di leen ziar nii rek lay demee seral sa xol ci nab bi dañ ci nuyu ñi nga xam ne ay kilifa lañ waaye doon kilifa ci li nga xam ne moo di diina ji di ci yar taalibe yi ndax niñ koy waxee rek ki lay wan kii sa yàlla di la wan kii sa yonent di la wan nan la ñuy yaroo nan la ñuy téye say wayjur kooku mënoo koo fay ba tax na sëñ Ablaye ñu la ciy ñaanal bu baax waaye duma fàtte ki nga xam ne moo ma boole yéen muy soxna Faama sëñ la maa ngi koy nuyu ak baayam bu baax boobu waaye duñu fàtte suñu yaay meen gisee ñu ngi koy nuyu di ko ziar di wax rek soppi Seydina Mohamed yi foofu ca Touba muy sunu uh, kilifa yooyu ca Gédé Bousso bii may tegaat yéen laa koy may di sangu-sang yi ñu ko ci tagg saayi bul taaj saayi bul darajati njool màkk njool médina borom bariyeelu ool ba ca médina sallallahu alayhi wa sallam nee naa bu dul woon moom dara du am lépp luy leer mbaa luy raam bàyyi mbaaluy nooy ci dara jàmm moom sangu-sang yi lañ ko dippee ba tax na émission bi may def muy seral sa xol ci nabi ma jël ko tuddee ko Seydina Mouhamed li ko waral mooy cofeel gi ma am ci ci moom di ko sant yàlla bu baax nee naa njab xale yi bëri nañ lool ku ne na sa émission waaye man maa émission bi di seral sa xol ci nabi di ci seral képp koo xam ne rek soppay Seydina Mouhamed nga maa lay bàyyi nga seetaan bi may tegaat waaye di ko may njabootu sëñ Ablaye Bousso gi yépp ak taalibe yi nañ ko seetaan daal dellu sewaat ak yéen ci plateau bi الرسول الله أكبر Yeah. die bil amril muqtar jin saraf tal madinah marhaban ya khairada tala al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukuru alaina madai لا إله أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور أنت والله يا محمد أنت مفتاح السجود تعالى البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دائنا صل على سيد العابدين صلى الله عليه وسلم صل على سيد نبينا صلى الله عليه وسلم صل على رسول الله macha allah ni lay demee saa su ne ci seen émission seer sa xol ci na bi nee naa ñun Seydina Mouhamed rek moom la ñu am parce que li tax ak ku tax moom rek moo tax sallallahu alayhi wa sallam njool màkk njool Medina. ki nga xam ne mooy buntu yàlla bi ki nga xam ne mooy leeru yàlla nga xam ne mooy jaasi yàlla ji Seydina Muhammad kenn du moom sangu-sang yi Ibn Abdullah ba tax na bi may tegaat damay dem fële ca Fatick fekk fa eh, ñi nga xam ne ñoo di waa kër ga muy Siga Diouf ak ñi nga xam ne ñooy famille Diouféen gépp rawatina Xemes Diouf duma ko fàtte waaye nag eh, di ci nuyu njabootu Sine Saalum gépp ndax macha allah barki démb rek doon sant yàlla foofu ca Fatick su ma limee rek dëkk yi damay jum waaye képp ku nga xam ne rek yaa ngi ci biir Sine Saalum maa ngi lay may bii may teg muy Seydina Mohamed sunu papa Omar Cissé keroog taggee ka fa ki nga xam ne moo di sangu-sang yi saayi bu taay ji saayi bul daraja ci njool màkk njool Medina ki nga xam ne mooy sunu lépp ah, dama koy teg rek may ka ñi nga xam ne ñooy waa Sine Saalum bërki démb ñoo doon def màggal yàlla fédération Sine Saalum ñu doon màggal yàlla foofu ca Sine Saalum di ka fa sante dama juum sant yàlla maa leen koy may waaye rawatina Siga Diouf maa ngi koy nuyu ak magam jii di xemes ak famille Diouféen bi yëpp du ma leen fàtte nañ ko seetaan rek ah, daal di dellu sewaat ci plateau bi incha allah ñuy seral seen xol ci Seydina Mohamed nii lay demee saa su ne. إنك لتدعو من آل الخير ومن آل آدم أسماء يا مقبول خيط أمها مبايكوت يا لمي آل الخير ومن خيط أمها بيادم أسماء mu ne sa maam Adama xame woon ci ñu yàlla laaj malaaka yi amal ñu ko xam yàlla xamal ka maam Adama bu jaay Seydina alma. tuba masha kan ni lay démé saa su ne seydina mohammed kenn ba taxna na la way kat naan lo neex neex baat mana way te wayo yenen sa way dee na waay way wa nga way niil na ndax géeru géer ni moy sayidina mohammed sangu sangay ba taxna na luy di def rek nang ko ci jiital ndax moy leer gi nee solution bi sayidina mohammed la fi ñu taxaw fu nekk ni jamono bi metti bu ñu jëloon lepp delloo fi nga xam ne di sangu sangay ibn abdallah day daal taxaw ndax mom rek moy solution nee mom moy leeru ki borom barrière or ba ca Medina sango sanga yi sama soppi ba waaye sama soppee sëriñ ba El Hadji Mouhamadou Moustapha Ngom lii ñuy def moo ñu ko won moo ñu ko jàngal yal nañ ko yàlla fayal waaye yal nañ yàlla yokk ay leeram ci barke Seydina Mohamed di sangam ndax moom saan dafa jeexoon ci nabi dafa see ci nabi ba tax na lii ñuy wax ci Seydina Mohamed moom moo ñu ko moo ñu ko dimbalee moo xam nan la ñuy bëggee Seydina Mohamed moo ñu xamal nan lañ koy jàppee moo ñu xamal kuy Seydina Muhammad waaye moo ñu jàngal li ñuy téye wayjur yi moo ñu xamal diine moo ñu xamal lislaam yàlla nañu ko yàlla fayal ba tax na li may def nii moom mii lu lépp ci moom la yàlla nañu ko yàlla fayal waaye bi may teg nag di ko tegal képp ku nga xam ne rek euh, si dinaa Mouhamed nga yow laay tegal bii rawatina ki nga xam ne moom laa toogal tey jii muy soxna Awa Yaay Seex yi dama koy ñaanal yàlla na ko fi yàlla yàggal guddal fanam loolu yokku xéewal gi mu saawaan baawaan waaye duma fàtte Ibrahima Seen sama mag yi waaye di nuyu ki nga xam ne rek mooy sunu papa Omar Cissé nañ ko yàlla yàggal sunu kanam ci barke Mouhamed nee naa lii may def tey coobareem la parce que moo ma ci yar bu ma yaroon ci leneen nit ma mel neneen waaye kenn du moom yàlla na ko yàlla defal jàmm ndax moom tamit lii rek lañ ko xamee day toog ci tànte yi di tagg ki nga xam ne moo di Seydina Mohamed kon lii may def su ma ko defee rek dama wàcc sama yoon di ko ñaanal waaye di ñaanal sama yaay ja yàlla na ko yàlla guddal fanam. yàlla yokk xéewalam ñu dund ba di ko yóbbu màkk ci barke Seydina Mohamed waaye nuyu njaboot siise gépp duñ leen fàtte bi may tegaat nag ñoom laa koy may ñu seetaan ko rek daal di dellusiwaat ci palaato bi incha allah daal di tàggatoo.

Alla Saara Fall laa bëgg a dégg yaa leen gën yaa Mas quero macha allah macha allah kenn du Seydina Mohamed ba tax na tey ni lañ leen indiloon ci sera sa xol ci Seydina Mohamed nee naa lu neex doy dañ koy dog ba beneen yoon ba tax na dama ci nuyu képp ku nga xam ne rek yaa ngi seetaan di commentaire duma ci fàtte ki nga xam ne moo di Waly seen ak njabootam bàyyi Seydina Mohamed seen waaye duma fàtte soxnam Abi di ko nuyu di ziar waaye duma fàtte ki nga xam ne moo di Alsaan foofu ca Mbeewaan ak soxnam di leen ñaanal tamit du ma fàttee Mbathio Rassoul Amina Ndoye maa ngi koy nuyu di ko ziar di nuyu képp nga xam ne rek yaa ñuy seetaan nee naa su ma du ma matal ba tax na yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu ñëw ba kenn ku ne fa nga toog ma ne la jàpp loxo di la nuyu di la tatagal nee naa lii ñuy wax yéen lañu am ndax kii wax ba tax na lii lañu leen di defal képp ku ñuy seetaan ci émission Séral sa xol ci na bi rek ñu di la ziar di nuyu Khady sama rakk maa ngi koy nuyu di ko ziar waaye di ko ñaanal yàlla borom kër ku ko antan ba antalaane ñu di nuyu sëñ Moustapha borom kër gi maa koy nuyu di ziar duma fatte ba borom loxo bu set bi neena naa bu doon mom dara du rafet ba ma ngi lay nuyu di la ziar way di ziar sama dom sama seut sama xarit en Serif Mamadou Ngom borom bés bu neex ba kérok la 24 macha allah defar nga ba mu baax di la ñaanal rek yalla na yalla wëral baat bi nga gën di tag ki nga xamne moy di sama am rasulillah Serif ma ngi lay ñaanal way di ñaanal sa wayjur bu jigéen soxna Fatmata di nuyu ñëpp di leen ziar mbokk yi fii la ñuy tàggatoo di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu ci seen beneen émission Sera sa xol ci nabi ya Muhammad ya habibi ya Muhammad kunta bibi ya Muhammad kunta يا أبي يا محمد كن بيدي يا حبيبي يا محمد كن بيدي لا لا لا يا محمد يا حبيبي يا محمد كنت بيدي لا لا لا lay lay la la ya Muhammad ya abi ya Muhammad ku tabi ya Muhammad ku sopp Seydina Muhammad sar xol ya Muhammad lay lay la la ya Rasulullah salam alayka salawat alayka رسول الله يا رسول الله سلام عليك صلى وعاد علي raw sa kanam yow kooka texe naa yaakari ka ne min waalide ya Muhammad ya habibi dëgg la ya Muhammad la ilaha illa tala alba dur alayna min saniyat alwada

Makka la juddoo moom Seydina Muhammad Makka la juddoo Seydina Muhammad aleen maam